sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baalaat xaq di leen ko baalawaat ci seen bi yéen yi nga xam ne ni yéen a bëggal seen bi seen bopp di topp Cheikh Ibra di leen wax ngeen abone si seen bi video bu def ngeen mën koo am tey bés kolos bi yéen yi nga xam ne ne yéen ak gan ngeen si seen bi xam-xam ak njariñ moom moo ko tax a jóg yéen ñi nga xam ne ngeen a bëgg a bokk si groupe bu whatsapp bi boo leen wootee si numéro téléphone yooyu incha allah danañ leen si dugal euh, ñi nga xamee ne nag jamono ji yëpp ñu ngi nuy jàmm si wàllu tiktok bi góor guy fowee awraam wala jigéen guy fowee awraam wala góor gi nga xam ne ne dafa nekk si awraam fowee ko ba nga xam ne néew na doole mënatut a sëy benn minute mënatu la say ñaari minute mënatu la ñetti minute nga xam ne ne am na gàllankooru saa bu tiimee soxnaam day gaaw a àgg wala mu gaaw a daanu wala muy gaaw a yëg boppam ñu indil leen si liggéey boo xam ne ne ñu ngi ko liggéey si wàllu lem ak i secret ak mbiru baaten si alxuraan ñi nga xam ne diiru trois jours la lay tàqale gaaw a daanu képp ki nga xam ne da gaaw a daanu nga jël ko ñetti fan gaaw a daanu boobu tàqale na ko ak yow ni ma la koy waxee nag noonu nga koy defee ndax am na nit ñoo xam ne ne mënuñoo muñ seen soxna ñaari fan ba ñett lii nag boo ko jëlee da koy jël ñetti fan doo ko mën a ànd ak soxna si maanaam soxna si moom da koy muñ ñetti fan nga traité sa bopp ba pare doo ko mën a ànd ak moom loo xam ne ne saa boo xëyee eh, dang koy diw sa awra ba nga raxas def ko noonu ba am tuur ñetti fan mu rey li nga xam ne ne mo nekkoon tooke bi nga xam ne moo nekkoon si awra bi wala jinne bi nga xam ne moo jàppoon awra bi wala sidit bi nga xam ne ne moo taxoon ngay gaaw a àgg wala ngay gaaw a daanu yooyu yëpp daf koy traité génnee ko ba mu set loolu nag eh, diir bu gàtt la koy génnee si ñetti fan boo boo sëyatee dootoo gaaw a daanu da nga sëy ba li nga bëgg danga ko sey danga sey ba doyal te doo gaaw a daanu eh, ñi nga xam ne ne nag danoo yàkkamti nga xam ne danoo bëgg jël ko si suur bi ànd ak seen soxna si suur bi kon 17 heures nga koy jël boo ko jëlee 17 heures eh, ba 21 heures nga raxas ko bu dee si si guddi ki da ngay sëy 22 heures da ngay sëy boo ko jëlee dix sept heures ba vingt et nga raxas ko boo ko raxasee nag suur boobu mën nga see ànd ak sa soxna suur boobu moom daanu moom da koy dégg waaye doo ko def kon nag amaan na nga xam ne ne moom daf lay fajaale nga traité waale la pour gaaw a daanu bi amaan na fii nga xam ne moom mooy Fass Médina ak parcelle saa boo wootee si numéro téléphone téléphone yooyu nag foo mën a nekk da nga jot ndaw ñi ñoo la ko ba fi nga nekk mu faj la ba nga wér si kàttanu yàlla kon fi amaani la ba fan yi incha allah